Mbacké Dia euh, docteur Mbacké euh, ñu ngi lay euh, nuyu docteur merci d'être là ñu kontaan lool ci projet bi nga xam ne ni taxawal ngeen ko sànq ba tey ñu ngi koy rafetlu d'abord lan moo sabab ñaari bis yi nga xam ne ni tànn ngeen ko ci ay borom xam-xam ay docteur ci ay médecin dem gratuitement pour jàppale ay ndongo daara docteur. waaw kon jërëjëf Pape Cheikh. maa ngi def di leen di leen nuyu. Mhm. di nuyu seen équipe bi yëpp. jërëjëf invitation bii nag ñu defal. Mhm. ak opportunité bii nga ñu jox pour ñu mën a wax lan la ñu mbëbët si ñaari fan yi. Mhm. ñu dañoo nekk ay acteurs de santé. ay médecins et ay professeurs. donc ñu nekk Sénégal. léegi moo amoon actualité bu fi jiboon. muy problème daara yi. le retrait des des enfants. nekk euh, ay taalibe ci mbedd bi mm-hmm. ñun ñu jóg ne ah comme ñun ay sénégalais lañ mm-hmm. état bi moo ñu forme mm-hmm. ñu nekk ay kilifa ci santé bi donc war nañ ci jouer suñu partition ci politique bu noble boobu donc loolu moo tax ñu jóg ne dañuy def ay journée de consultation à travers tout le Sénégal pour que ci domaine santé bi taalibe yooyu ñu jël def retrait bi du ñu am benn jafe-jafe en matière de santé. voilà parce que euh, boo leen rombee ci euh, euh, tali yi gëm naa ni da ngay xam ni ñii waxuma la xiif bu ñu lekk bu ñu bu ñu bu ñu xiifee lekk mais boo leen xoolee rek xam ni duñu leen faj. voilà dañu bëri ay feebar yu leen di daal ay picc ak ay sibiru euh, xale yu bari faatu nañ noonu ci mbedd bi ndax ñàkk toppatoo euh, defe naa bu ngeen demee ba euh, tànn ñaari fan yooyu cause mënta gën mënta gën cause mënu ko gën a noble hélas mm-hmm. waaw Pape Cheikh cause mënu ko gën a rëy mm-hmm. man de leen rek sax mu ci gën a metti ñàkk sangu bi waaw ñàkk sangu bi mm-hmm. te loolu c'est le minimum. Mm-hmm. war ñu def pexe boo xam ne bii lu mu gàtt gàtt bu dee ñetti fan sax. Mm-hmm. ñu fexe taaliba yooyu di sangu. Mm-hmm. mais bu ñu ñëwee di yalwaan bu ñu la dandee des mètres. bu ñu bu ñu dee ñëw rek da xam ne ñu ngi ñëw. te loolu dara war la ko ñàkk sangu moo ko waral mhm. kon vraiment ñi nga xam ne tam dëgg-dëgg nag ñoo nekk ak ñoom mhm. même boo ko joxul mu lekk mhm. mi ngi dem di yelwaani mais nag bu sangu jotee nag vraiment nga def effort pour ñu sang d'accord programme bi naka lay demee di leen fekk parce que am na ba tey ñu nekk ci mbedd yi fii ci almadi bi nii boo génnee di ci fekk donte ñu ngi leen di jël di leen yóbbu ci ay centre euh, naka la programme bi nar a demee a ñëw doo gisee daara yi il faut identifier les enfants de la rue ak talibé. dëgg la. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est important. Mm-hmm. le retrait ñu tous nous sommes conscients que retrait bi war na am. mais faisabilité bi tam war nañ ko xool. kan mooy talibé ak kan moo dul talibé. dëgg la. parce que bu ñu waxee talibé mooy koo xam ne day jàng. te jàng ci béréb lañ koy def. donc talibé waruñu ko di leen gis. tout le temps si mbedd bi. peut-être y a des heures. ñun bu ñu gënee bu ñu gënee nekk xale. dañ daan gis ne ñoom 7 heures du matin la ñuy ñëw. di yalwaan. ndekki ñëw ndekki. Mhm. ñu demaat jàngiwaat. 13 mhm. heures ñu ñëwaat. saarax añ. sa voilà. Mhm. yaara bi naan añ. après 20 heures ñu ñëw. saarax reer. saarax reer. loolu lañu gisoon. mais léegi loolu gisatuñ ko. tout temps ils sont dans dans la lutte. donc léegi il faut ñu xam les causes lan moo waral taalibe yooyu di dem ci mbedd bi. Mhm. xaalis bi. donc loolu nag dafa am ay causes. Mhm. l' état a mis une politique de retrait mais je pense ci sama xam-xam. Mhm. que état bi waral na ko gën a càmbar ba xam lan mooy cause bi attaqué cause bi. parce que sànq Pape Cheikh wax na ne xale yi ñu ngi ci mbedd yi ba léegi. donc je pense que cause bi des na du ñu attaqué woon cause bi peut-être. doo leen gis mbedd mi. sëf la xaw mm-hmm. yi mooy jël nga jël feebar bañ a faj bi. feebar bi donc day law la doo doo jëlee feebar bi nga yóbbu ko day law rek. Mm-hmm. donc il faut la cause. Mm-hmm. la cause nga xam ne lan moo lan mooy cause bi lan moo waral ne. xale yi di dem ci mbedd bi. pour nga attaquer loolu. l'État doit s'atteler à ça. vraiment pour régler ce problème parce que c'est un droit des enfants. et les. Euh, l'État a un devoir mm. envers ses enfants. d'accord ah, waaw mm. non non pour dire que ñu ci bëri euh, tey jii peut-être euh, ay Maliens la ñu man remarque bu ma def la. ca guerre bi depuis guerre bi la ñu ànd ñoom ñëpp ñëw fii ak seeni doom ak yooyu. Mm. donc je pense que actuellement delloo nañ ñu bëri. je pense actuellement delloo nañ ñu bëri mhm. et que ñeneen ñi nga xamante ne ñoo fi des Pape Cheikh bu fekkee dañuy delluwaat ci li nga xamante ne moom moo waral journée bi yaa mhm. y semaine quelques semaines euh, for nañ fi benn xale boo xamante ne euh, dafa dafa dafa seddoon mu ma fa dafa grippé tëdd ci suuf mm. mu tuur na ndox ci kawam yëpp Euh, def euh, def fièvre bu dem ba quarante presque il a fallu ñu dugal ko ci benn kër fii à côté avec Zalkan mhm. euh, dugal ko ci li nga xamante ne mooy baignoire bi sotti ko ndox mu tàng ba ma xar ba fièvre ki ñu door ko yóbbu hôpital donc donc yooyu cas yooyu noonu def fi mhm. bëri donc au delà du recase recasement bi nga xamante ne dañ koy dañ koy dindi leen recasement bi tam am na ci solo mhm. et puis et puis am am volonté wu jóg ah, bañ a xaar nguur gi comme ni ñi nekk ci wàllu wér gu yaram defee ko xaaruñ ci dara loolu defee naa ñun ñu ngi koy rafetlu Euh, donc dina am ay médecins dina am ay docteurs ay professeurs yoo xam ne dañuy dem vers xale yi fan ngeen di njëkkee le 14 incha allah. en principe Thiès lañ koy njëkkee. Thiès incha allah waaw. xaw ma ndax am publicité la doon mais que. si ah, daara saa yu turee action yu baax dañ ciy jàpp saa saa yu la ñuy commencé daara boobu. incha yu baax yëpp dañ ciy jàpp ñun. ba noppi fu ñu dem rek. Mhm. daañ fa fe daañ fa créer benn cellule. très bien pour mu am suivi. macha allah parce que toujours yaa ngi dégg consultation gratuite. Mhm. mais toujours du am suivi. dëgg yi leneen lañ ciy séntu. Mhm. mais bi moom. Mhm. dañ ko gëm. Mhm. parce que ay sénégalais lañ. Mhm. c'est une politique noble. xale yi dañu am droit. ñu bëgg jàpp si daal. voilà jàpp si daal comme nu mu waree. incha allah en tout cas yéen ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ni ngeen ci jàppee. bu bu bu bu defee ni ngeen def defe mm. naa. Mm. Euh, jaratul comme je dis tout le temps jaratul ñuy xaar nguur. Mm. mu ngoog euh, docteur Mbacké Dia euh, ñu ngi lay gërëm kon consultation yi di ngeen ko tàmbali le 14 incha allah ca Thiès. merci nga nuyul ñu ñeneen yeneen docteurs yi. ak yeneen professeurs yi. waaw waaw jërëjëf merci je pense que.